gisandoo affaire baa ngi bëgg a doon politique Mo Gates dafa contacter Kaliphone dem leen seetaan vidéo bi daan ko damaa bëgg nga bokk sama staff yaa ngi dégg liggéey bi rafet na ma envoyé la jet privé nga dugg si jet privé bi ñëw Kali daal di contacter Fatoumata benn xaritam Kali nag dafa mel dafa kontaan ci affaire yi ndax nee na ku sañoon si Sénégalais yi moo Gates dina la woo téléphone méttante contact ak yow ñu bëri ci Sénégalais yi bu leen Mo Gates woowoon ñu tëb comme que yàlla fii la ko jaarale xam naa moom tamit kontaan na te bëgg na ci loolu yaa ngi dégg affaire bi mi ngi doon doon politique moo boo amee problème personnel réglé ko ak man Wally Seck foo ko laalee ma teppi sa tuuru ndey foo duggee ci ditaadi waalee ma daqaar sa ndey ak koo yaakaar ñëwal nga def plainte man damaa tooñ jéggalu Sénégalais yi bar sama yaay laa ci rus sama papa ak sama waa famille du ragal du cott ndeyam koo yaakaar defal say plainte ngi ñëw ma jël plainte yi rof ko sa lëfal ndey moo gét man maay wax man Adamo Boss day affaire yi politique la bëgg a doon politique la bëgg a seen data yéen ñëpp Sénégal am ngi am problème kenn génnul wax mais Adama jaral na population bi yëpp ñu génn Adama jaral na télé yëpp non mais mais mais mais doomu Selbe bii du nit non man du ma nit damay xool sama bopp ci seetu taxaw mais dama naan non non non man am na lu ma rax daal du ma nit du ma nit du ma nit gars yi nag jàppaan na ne kaayee taxoon sama live yu différence déedéet def naa live six mille personnes li may yàlla may may na ko du deñ su ma taaloon live bi léegi léegi cinq mille personnes taxaw te du ma kaari billaahi du ma teg foto du ma wax ci nit damay taal la ñu ñëw yàlla moo ma defal loolu nit ki di ko yàlla def mënu leen ci dara Sénégal neexul ba néexul mais maa fa teg tànk neexul ba néexul mais maa fi nekk ñëpp may attaqué ñëpp ay wax ci man xoolal tale yi ni ñu bëree xoolal tale yi ni ñu bëree fukki tale juróom-ñett fukki tale juróom-ñeent am aadamu jàppal aadamu indil aadamu jàppal boos bàyyil boos noo du ma nit vraiment du ma nit te nag ngeen am problème yoo xam ne nii war ngeen koo régler muy situation Sénégal gouvernement bi ak yeneen ak yeneen yu gën a am solo aadama lu muy def mais noonu non ñëpp aadama lañ tëg bët parce que mooy lom bi nga xam ne nii mooy yëngal Instagram bi di yëngal TikTok bi lom bi nga xam ne moom mooy yëngal YouTube bi lom bi nga xam ne ku fayeeku rek ci ñu nekk ci internet bi rek grâce à ndax moom moo nekk koo xam ne nii mooy topp gars yi moom la ñuy dugal di wax ay affaire kon man du ma nit sa waay nit kali nag fekkoon li nga génn di def baax na man sant naa la gërëm naa la bu fekkente ne moo génn moo tax nga ko doon def bay wax ay jet privé mu lay woo di la dig yàq nga ko parce que moo géet bu génnoon wax ci Wally Seck ma génn saaga ko ndey bu laalee Wally Seck ma génn saaga ko ndey mu dugg samay 18 ma fat ko man je suis pas peur du ma ragal man ak moo gét problème privé la nan koo régler en privé yónneel ku la neex mu ñëw fekk si ma Allemagne wala Angleterre fu ma nekk ba ma wooyee ma ne la ndax maa ngi Allemagne wala maa ngi Angleterre wala maa ngi Italie ndax man damay voyage rek maa lay woo wax la nga yónnee ay ndaw ñu plainte ma teg la ci at maam déggoo ma de moo aada du la may dara xalaatal ku la neex ci àdduna bi nga contacté ko mën naa jéggalu Sénégalais yépp moom mu des di jéggalu waat ñépp nag di baalu ak ñépp waaw di leen wax ne ni ma ko daan defee rek waaw sama Instagram xam ngeen ko kapo Boss Adamo waaw Capo Boss Adamo ñépp ko xam waaw kay wala Capo Europe Adamo 3 jeex na ñëw leen foofu ngeen def ngeen abonné di seetaan ni aadama di doxal jamono ji bokk naa ci ñi poñe Sénégal gars yi lekkatul gars yi naanatul am boos indi boos am boos indi boos doon fokk nday round doon fokk nday round man daal li may doxal maa koy doxal li ma xam-xam naa ko jéggalu naa mais Sénégal xoolaal nañ seen bopp ku bëgg a daanu takkal jabar takkal jabar nga daaru wala boog boo dee daaru mooy sutura mais di daaru di filmer sa bopp di yónnee di daaru di filmer sa awra bu aadama waxee nga ne wax bi eh Sénégal laay waxal de man du ma ragal non mais damay jéggalu mais faute bi du ci man dama koy def pour sama famille dama koy def pour sama famille man xam naa ne faute bi du si man dem contentement di santaat Ibrahima président euh, Fonsa bu baax moom mi nga xam ne nii moo gën a yokk sax affaire bi demee nii. ak sama famille di jiital sama yaay ñëpp di leen siyaare ñëpp jërë ngeen jëf. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi Adama la Boss ñoo ko gisandoo li fi jot a xew lépp génn naa def naa vidéo jéggalu mais jéggalu bi nekkul ne damaa jéggalu parce que damaa ragal déedéet damaa jéggalu parce que dama tooñ ay sénégalais tooñu ma leen sax mën naa ne ñoom ñoo tooñ seen bopp. ndax sénégalais yu bëri ñoom ñoo may envoyé audio simbi seen slip pour ma kaaleen bës jaral na leen ko ñenn ci sénégalais yi dañuy xulloog seen jabar bëgg a yàq seen jabar man jot naa kaay yu mel noonu ñenn ci sénégalais yi muy jigéen du góor da ngay xulloog sa copain ah wala sa copine jaaree fa def profilu false fake profil dugg fa yónnee ma ay vidéo pour ma yàq ko léegi nag beneen dafa am da di jaral tamit ba tey ñu fay benn personne fay ko xaalis kooku mën a jaar ci Adamo envoyé ko vidéo yi te ñoom dañ ci feeñ Adamo demul dikkul man maa ngi fii je bouge pas je suis ici ok damay liggéey fii laa nekk di fi musumaat dox ci ay jaaxaan liggéey lañ ma xamee lii may def ñi nag ci mën la bokk waxuma leen bàyyi naa kaay de noo dama sensé facette maanaam ni ma ko daan defee di teg image yaa ngi dégg ak di wax nit ki turam loolu laa bàyyi mais li ci des lépp day continuer man bu ma arrêté am na ku ma gën a garaaw foofu Kocc mi ngi fi FBI yi sax mënulu ko dara man sama kanam day feeñ te Kocc daraam du feeñ soo leen aayee dem leen ci moom moom moom wax dëgg yàlla du ragal te du baale te am na ñoo xam ne dinañ ma yaakaar pour ma dimbali leen te du ma ko def pourtant Adama lu muy def tës moom lay def te tës yéen ñëpp koy seetaan c'est la même chose Adama dafa siiw rek sénégalais yëpp Adama zal gis naa ko mu attaqué ma léegi mais kooku borom mbaax la nit ku baax la ku yaru la kenn mësu koo dégg ci ay jaaxaan man personnel sax. maa ko daan tooñ naan ko Zal xanaa doomu attaqué ñeme woo ma ne doomu attaqué nit ku baax la booy bu kuul la du ma ko saaga ndey du ma ko dépassé ci li mu def Zal dama cee kontaan vidéo ci kan laa kontaanul mooy ñiy profité waale di wut buzz ñiy profité waale di wut buzz ñu si mel ne ay mag di vidéo mag di youtubeur kan moo la xam mag def nga vidéo barki alxuraanu karim vidéo boo xamante si nii dix mois la am doog am sept cent dix huit mille vues nga wax ci Adamo rek da wax rek ñaari fan yaa ngi ci presque sept cent ci sept cent mille vues nga am ko ci ñaari fan calculer leen di mois ak deux jours kon xam nga ne sa papa man rek maa jara waxtaane man maa jara kaa soo ko deful doo lekk de te sa famille du lu dund fii Adamo moo fi nekk muy neex muy naqari bos Day Negri moo fi nekk Kali nag génn na wax mais bu leen jàpp ne li Kali wax moo tax ma bàyyi de déedéet sama yaay laa yërëm ak sama fami nit ñi bëri na coow li bëri na man kenn mënulu ma dara man du ma ragal mais dama koo def pour sama jàmm famille pa ay Kali ak Ibrahima Diagne Ibrahima président Fonsa Allemagne woo na ma waxtaan ak man ñaan ma njekk sama frère la mu ñaan ma comme frère ñu bëri ma jéggalu sénégalais yi sans cette facette yaa ngi dégg di jéggaluwaat ñëpp nag ay duudoog euh, maam jaaraak ay ñoom euh, Adja Jóob ñi fi jaar dafa bëri tur yi mënu ma leen a jàpp maa ngi jéggalu ñëpp ñi ma xam ne nii wane naa seen kanam teg seeni information maa ngi leen di jéggalu waaw di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp waaw Ibrahima président ak ñëpp léegi nag euh, di sant tamit sama yaay waaw ak ñëpp moom nag kontaan na yónni na ma audio ne ma yàlla nga sax si lii lii laa bëggoon yàlla na ko yàlla defal kali nag génn na wax day politique walla politique xaw ma ko ndax moo moo taxoon mu déplacé wu wax xaw ma ko ndax nee na moom carrément moo gën woo na ko téléphone neen nag après vidéo yi la ko wo ne ko dafa bëgg a liggéey moom nee na nag ah, da koo dig jet privé yaa ngi dégg wax na ko jet privé wax ko xaalis mu dugal benn xaritam ñu waxtaan ñoom ñaar xam nga moo daal nee na ko liggéey bi rafet na dafa bëgg liggéey moom daggal ko bee jëlal ko jat privé mu ñëw dafa moom interview ca Las Vegas lii la Kali wax affaire bi nag bu naa Kali ne ko man ak moo géet combat bu rëy la man li may def nii tali taxul ma bàyyi ko mais dama am famille yaa ngi dégg sama famille danoo xaw a sonn man ragaluma nee naa leen fii laa màggee fii laa yaroo duma ragal billaahi mais nit ki dina dem bu mu jàgg wax bu bëree xam nga wax wax bu bëree bëree bëree bëree bëree bu yàggee sax baaxul quoi coow li bëri na tele yi ñëpp na nañu waxtaane fukki télé juróom-ñett aadama aadama aadama aadama aadama aadama comme rek aadama rek a fi ne ni ngeen dossier bi ngeen jël pour wax ci Adamo bu ngeen ko defoon ci pétrole bi def ko ci gaz bi def ko ci source yi def ko ci taxi yi def ko ci avancement Sénégal Sénégal avancé na bu yàgg.